mbokku déglukat yi ñu ngi leen di dalal ci rajo Takaful ci seen waxtaan bi ñu duppee kéemtaanu ceenu ki leen kay digtal di programme Takaful bii di jàppale askan bi ci wàllu koom rawatina jigéen ci waxtaan bi weesu xujja xamal na rewlikat yu ci dëkk bi ni liir bu juddoo ci saa si dañu ko war a nàmpal kenn waru koo jox leneen ba mu ñibbee fekk na doomam mbay di jooy muy wax ak moom di ko laaj di ko jot ak lu mu bëgg ànd ak ndumbe di ko woyal ci biir loolu góor gi biraan daldi di si ngir ñaan ko mu bokk ci ñi nar a jongante woote mairie bi ñu dëgg ma ci dëkk bi ñu naan ceenu xujj ak njabootam ñoo fa dëkk ñu netti leen seen jaar-jaar xujja woote maire yi dëkkmal na man dama géeb mag mënuma bokk bi yoon ci joŋante bi yow xale nga am nga cër fii si dëkk bi ni ma déggee koddu ak ndeela di wax si yow yaakaar naa ni mën nga am ndam soo demee ba nara bokk ci joŋante bi ngir bañ bàyyi lemi yàq alalu gox bi xamal ni dinaa la si jàppale yee da ngay jiite maire dëkk bi ginnaaw ay fan bi xujja di togg suba teel rakkam ante ñëw na nuyu si ko xool doomam bu ndaw bi mbay nu mu def. ngay toggal mbay ruy. waaw Anta mbay am na juróom benn weer jot na ma mottali si meem bu muy nàmp tuuti lekk ma wàññit nànka nànka nàmp bu muy nàmp. waaw tàmbali naa lekk waaye terewul war nga ko nàmpal ba mu am ñaari at. waaw waaye xam nga ne suñu daje yi ñuy amal mësuma kaa tëbal benn yoon li aajo ci wàllu suqali suñuy gox dëgg la yaay na ngay togg njagana bu ñu war a lekk déedéet ruy bi saraka moo ko moom dafa am ay fer ñeent yu ci nekk lu tax du lekk comme ñun sama doom xale yi am juróom benn weer ba jàpp at mënuñoo lekk lu mag ñu du lekk du leen di may tuuti tuuti ñuy lekk lu mel ni ruy su maree ñu may leen ndox bu set ñu naan. looy def ci ruy bi ngir dooleel ko. damay xooñ mboqum bu mu gajaf ma weer ko ci ker gi ba mu wow ma wal ko toggal ko ci ruy bu am solo léeg-léeg ma yokk ci ñebbe ak diw di ko jox ruy bi ñaari yoon ci bis bi ngir mu mën a mottali nàmpam yow nag looy jox sa doom. sama doom wuli mëta am na at ak ñetti weer. dinaa ko jox ñeenti yoon mu lekk ci bis bi ay lekk yu wute léeg-léeg ma jox ko ruy léeg-léeg ma togg léegi ma ak jën riij ko léeg-léeg su waa kër gi yàkkee ma tibbal ko si ber ko mu lekk ba suur mbay bul jooy maa ngi ñëw xaaral noppi mu ñëw tuuti rek xam naa li nga bëgg jigéen bu rafet bii moom sa tante Anta la <laughs> yéen mel na ñaar ñuy waxtaan dañuy waxtaan kay xam nga xalel bu dee jàng wax bàyyil xel si lu muy wax li am na solo torop dafa am lu muy bëgg a wax soo ko tontoo da koy yokk sawar waaye itam mën na cee jëlee ay baat yu bees moo man sama doom daaw ma wax ak moom moo tax ba léegi mënul wax bu baax del wax ak moom saa su nekk su yàggee dana wax wax ak xale dafa am solo torop day tax mu ràññee la miin la sa diggante ak moom gën a tax ñii di gëstu su fànn boobu nee ne nu liir nga war nga wax ak moom laata muy judd waaw mas naa dégg li ni mel ci daje yi ñuy def ngir suqali askan wi. xujj ak rakkam ant ñu ngi waxtaan weccoo xalaat ci yaruñu xale yi. ay booru midi ma dem ba ñibbisi na jóge tool ya. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw kay. anta sa dëkkaal déggoon naa dafa feebar ba sonn lu ko dal. lan moo ko dal xanaa biig dafa reer ba pare rek ànd ak xartaru biir rax si di wàccu rek bi ñu ko yóbbee ci bërëb fajukaay bi docteur bi nit ñu dafa lekk ñam bu am tilim mm-hmm. ku nekk war naa bàyyi xel si ñam bu muy lekk si wàllu set ku nekk balaa muy lekk war naa raxas ay loxoom ba mu set ak ndox ak saabu raxas itam lu muy togg ba mu set laata mu koy togg ndab yu ñuy toggee tamit war nañu raxas ba mu set wecc ak ndox ak saabu laataanu si yekk ñam bépp ñam laata ñu koy togg war nañ kaa raxas ba mu set wecc ak ndox bu am tuuti eau de ngir mu rey doomu jàngoro si nekk yi balaa mu ñuy jural ay feebar suñu jëlee suñu matuwaay su boobaa mën nañoo mucc ci yenn feebar yi. loolu moom wóor na ma waaye xam nga feeg Lamine mii jiite gox bi mi ngi fii te jàppale waa dëkk bi nu taxaw ngir setal lu leen wër te jël seen matuwaay si wàllu set ragal naa ni dara du fi soppeeku te itam feebar bii di piiru tàñña du fi jóge mukk ma yëgale li nga xamul góor gi biraan seet si na ma fan yii ngir ma bokk ci jongante mairie yu ñu dëgmal fan yi waaw lu tax waxuloo ma dara xamoo woon ni danga bëgg a nekk maire waaw nan ngay def boo nekkee maire moo toppatoo sa njaboot bi lii moom mënul nekk tey mënul nekk ëllëg du xalaat. loolu mën naa nekk. mënul nekk. laa la wax jeex na takk. bul jaaxle xujja. lépp dina baax ma dem ba dëgër na bopp waaye muus na te ñàkkul xel mbokki déglukat yi dinañu leen indil beneen waxtaanu xujja ak jabootam ci waxtaan bi ñu duppee kéemtaanu ceenu ci rajo Takaful nekk leen ci jàmm